salaamaaleykum sunu mbokk internet yi tey seen émission toj yax mi ngi dalal gan gu mag muy Serigne maam Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba di président association islamique pour la sauvegarde et le du ay AIS ñu koy wax AIS ah, sëñ bi ñu ñu ngi lay nuyu. ok jërëjëf Mamadou Sall maa ngi lay fay ci nuyoo bi di kontaan ci émission bi nga ñu dalal incha allah fii ci Allo Dakar. ñuy chaîne boo xam ne vraiment Sénégal yëpp nga koy suivre di ko topp ndax seen liggéey bu rafet ak boo xam ne ànd ak nag professionnel waaw. jërëjëf sëñ bi euh, laaj bi ñu lay njëkk a laaj nag mooy euh, décision bi nga xam ne moom la président Macky Sall jël ci deuxième mandat bi bëgg maanaam euh, supprimer passeport diplomatique yi. jërëjëf Mamadou Sall question la boo xam ne laaj nga ma ko fan yii yëpp mën naa wax ne depuis bi wax jooju jugee bari na journaliste yu bari bari yoo xam ñu ngi ñuy jokk ngir bëgg ñu ci laas laaj en tant que waa AIS. lan mooy seen xalaat ndax AIS am nañ ci xalaat ndax mooy kuréel gi bool tarix yi nekk Sénégal yépp macha allah murit xaaj tijaan laayeen lépp ngir patrimoine suuf nan lañ ko mën a saytoo euh, donc dégg nañ sax am na yeneen kilifa yu ci wax ci wàllu passeport diplomate euh, ñun nag suñu gis-gis lu simple la rek euh, passeport diplomate du ne dañ koo joxoon rek ñuy liggéey ci état wala dañ koo joxoon rek ñoo xam ne dañuy liggéeyal diine ji dañuy liggéeyal askan wi dafa mel ni ñoom ñëpp lañ ko boole jox donc bu njëkk njëkkee ne Euh, supprimer supprimer bi euh, kenn warut a taxaw ne euh, war naa bañ am war a warut a bañ am loolu selon président de la République moom moo xool xam ba xam lan moo tax mu koy supprimer ndax passeport diplomate day këyit woo xam ne boo demee bitim réew day wane gëdd Sénégal ak solo Sénégal moom lay wane. donc ba bari nañu ci dégg yoo xam ne wax nañ ne xëy na bari na réew yoo xam ne sax xëy na dugg beeg vaabeeg fi ak dugg beeg génn bi. bari na ci ñoom ba nga xam ne ñu mm, ngi doon xool ne xar war naa man a sax xajamal diggante seen relation ci wàllu diplomate passeport diplomate yooyu donc kon jàpp nañ ni moom bu fekkee dafa xëy suba ne da koy da koy da koy supprimer euh, supprimation ni ma wax léegi rek du ne rek dañu am ñuñ ciblé wala am ñu bàyyi déedéet ñi ko amoon ñëpp dañuy dañ koy delluwaat xëy na fekkee loolu am na donc nag keneen koo xam ne yelloo nga ko am keneen ku ko yelloo am ñu jox la ko ndax euh, diplomatie mooy lan mooy koo xam ne day liggéeyal réewam ci bitim réew day liggéeyal réewam ci bitim réew nan la mën a fexe ba relation yi am diggante réew yi relation tegul rek ci wàllu économie tegul rek ci wàllu maanaam maanaam li ñu ma tuddee développement waaye tegu na ci wàllu sax sta stabilité maanaam ak dal ak jàmm ndax yooyu mooy tax am réew euh, investisseurs yi ñi ma ko wala boog yeneen réew yi ñi ma ko mën fay ubbi seen ambassade wala jëflante ak ñoom kon képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci jàmmi réew mi ci stabilité ci dalug réew mi ak foo ko mën a liggéeyee rek moo xam ci biir réew mi nga ko liggéey wala bitim réew kooku man jàpp naa ne yelloo na ñu jox ko passeport diplomate ndax bu dee man naa ko tudd sëriñ si nga xam ne xëy na am nañ ko koo ci am rek xëy na danga nga koo yelloo ndax lu tax li ma waxee léegi am stabilité bu amul cim réew jàmm bu amul cim réew benn investisseur boo xam ne ñeme naa ñëw ci réew moom du am wala kenn ko xam ne ñu mën a ubbi ambassade am foofu du am jàmm ci réew nag dafa am ñu koy doxal mooy population ñoo koy doxal mooy kilifa yi ñoo koy doxal te kenn ku ne xam ne Sénégal macha allah tabaraka réew mu dal la moo xam ne suñ kilifa diine yi joué nañ ci rôle bu mag a mag damay wax ne lépp sax ñoo ko téye ndax réew yu bari wër nañ ñu muy euh, muy sous-région bi ay ay réew africain bari na ay coow yu fa am yoo xam ne bu ñu amoon ñu mel ne magi Sénégal wala ñu mel ne kilifa yi diine Sénégal seen réew mu dana dal kon jàpp naa ne ñooñu kenn gënu ne yell ci passeport diplomatique ñu jox leen ko ndax rôle bi ñu joué moo tax te ni euh, ñu mën a wax Sénégalais yi ñu ngi ci extérieur yi ñu ngi diaspora fees dal tey boo demee diaspora bi li ñu mën a tudd ay daayira ñooñu tey ñoo daanaka ñu association yi waroon taxaw ñoo ko taxawee ndax ñooy dalal Sénégalais yi ñooy ànd nekk benn ñooy jëflante ñooy def lépp loolu Côte d'Ivoire ko Guinée amu ko Guinée boo fa demee wala boo demee seen bitim réew yi wala Mali gii da fa fekk ay association nga fekk mais Sénégal contraire nga fekk ay daayira ngay ca ca wàllu réew mu gouverneur état yooyu jëflante bu rafet boo xam ne état sax jëflante ko te ñu daay réew ñen ñoo leen jiite ay sëriñ sëriñ soosu kon dama jàpp ne li ki ñu tuddee mën a diplomate ne diplomate la dafa am lu muy dox ci relation diggante état ak état naka noonu tamit sëriñ si nga xam ne xëy na am nañ daa passeport diplomat am na ñoo xam ne yelloo nañ ko lool ndax rôle bi ñu joué bitim réew extérieur ci wàllu diggante état ak ci wàllu diggante euh, maanaam dalal Sénégalais yi ci wàllu wane wane Sénégal xar kanam ne réewum jàmm lañ réewum tarang lañ loolu ñu koy wane jàpp naa ne ñooñu kenn gën a yell ci wàllu passeport diplomate donc kon xëy na am na des fois nga dégg ñu ci wax sax euh, mel ne dañ koy xañ sëriñ ne yelluwuñ ko am ah kay yelloo nañ ko xoolaat moo diplomate dëgg dëgg dëgg bu ñu xoolee nag institution bu ñu teg la da nga war a am carte wala nanga wala nga liggéey état dafa ëmb lu bare bare bari la ëmb dafa ëmb ñëpp ñun ñëpp ci état lañ bokk ñun ñëpp état moo ñu yilif donc kenn ku ne am na rôle bu war a joué ci réew mi sa loolu la ngay joué ci réew mi ci xar kanamu Sénégal nga koy wane ci jàmmi Sénégal nga koy wane ci Sénégal yi nekk extérieur nga leen di ni nga xam ne ñeneen noonu lañ ko amee président tamit euh, umpalewulee ne woote waat na waxtaan diggante moom ak opposition bi pour ñu waxtaanee coppite yi mu fas yéene indi ci sunu charte réew te déjà liñ ci jot a xamagum rek mooy euh, poste premier ministre bi nga xam ne maanaam da koy da ko ciy dindi tey AIS

Euh, mooy euh, euh, colloque bi ñu doon def ngir apaisement ngir dalal askan wi ngir wax ngir wax ak maanaam maanaam société bi yooyu yëpp defoon nañu ko la allah tabaraka donc bi élection yi jàllee li ñu gisoon mooy jéem a toogaat waxtaan pour am benn consensus ci lépp nag lu mënti doon moo xam lu mënti doon rek dama lu mënti doon war na ci am consensus donc kon bu fekkee président de la moom jékki-jékki ne ñëw woote dialogue boobu. donc vraiment ñun la la ma waxoon ci benn interview bu jàlloon ñëpp dem war a wuy dialogue ba wuru ko yemale ci ci ku wàllu politique muy opposition wala xeet yu mel noonu waaye ni ma ko waxoon rek mbooleem sëriñ si dañ ci war a dugg ñëpp dañ ci war a dugg ndax réew mi bu amee jàmm ñëpp la amal jàmm bu ñàkkee jàmm ñëpp la ñàkkal jàmm te des fois da ngay dégg bu xawee tàng nag sëriñ si nag bu fekkee dugal nañ leen ci ni ñuy fase ak a nocc ah bu bu bu caw amee wala nang amee loo xamul fa mu commencé mënoo xam mënoo xam mënoo xam noo ci duggee donc na kon loolu jarag boobu ñu ngi woowaat président de la na ko gën a yaatal dugal ci ñëpp na ci dugal ñëpp ñu waxtaane ko politicien opposition bi tam wuy si ñu toog waxtaane ko ba ñu war waxtaan yëpp muy processus électoral bi war a amaat am na xam am na élection yu ñëwaat maanaam local yaa ngi ñëw législative yaa ngi ñëw yu yëpp donc lu ñu war a mën a toogaat léegi balaa ñuy dem ci cappaandagu waxtaan waat ko loolu ci daw loolu nag bu fekkee ne wuy ji woon wala ba président jëlu ay matukaay yu mat sëkk boobaa coow day daal di amaat loolu mën naa ñàkk donc tamit lii mu def ci wàllu gouvernement bi moom moom lañu fal moom lañ fal cinq ans donc ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko mat jàmm ak salaam euh, réew mi des jàmm ak salaam donc moom moo xam nan lay mën a diriger am réew nan la koy jiitee donc bu échecgee moom la ñu wax bu baaxee moom la ñu wax kon nag moom moo yor lépp moom mooy xool nu ko neex mu defe ko poste premier bi ñu wax yëpp dëgg la moom mooy xool nu ko neex mu doxalee ndax yaakaar naa bëgg na ak réussir am yaakaar naa du dugal ci loxoom loo xam ne xëy na dana ko ñàkkal maanaam ay échec wala xeet mel noonu moom la daal moom moom moom lépp bu ko neexee mën naa xool gouvernement am nan la koy diriger loolu boobaa ñun nañ ci def mooy ànd ci moom rek incha allah rabbi mm. jërëjëf sëñ bi euh, beneen phénomène bi ne tey fi ñu toll ngi yàq suñu société yàq suñu réew fii ay nit yu ay nit yu doy waar di nëbbatu di ko defar mu son sàngara boo xam ne lu waaye am mën koo jënd te muy commencé yàq ndaw ñi tey ay yes yaakaar naa mission bokk na ci defar ay ndaw ëllëg yoo xam ne dañuy am diine jëriñ seen réew tey ban ban ban message nga am war koo lancer. macha bi ñu déggee décision boobu président teg ko ci taabal ji wax dëgg yàlla ñu doon wax alhamdulilah rabbil alamin ndax ko xool Sénégal dafa ubbeeku Sénégal tey réew yëpp da wut ko Sénégal xeeti nit yëpp nga fi gis léegi. lu ko waral mooy jàmm ci mooy li ma waxoon rek stabilité bi am ci réew mi moo waral euh, réew yi Afrique yépp daw nañu wut Sénégal ba ci occidentaux yi daw nañu wut Sénégal te ku ñëw nag ci réew mi da nga indaale sa aada indaale sa culture donc euh, moo tax nag euh, ñu war a saytu réew mu baax a baax a baax a baax ci wàllu mel noonu kon bu président jékki-jékki jug wax lu mel noonu sàngara soosu nga xam ne gis nañ ñun dañuy dañuy wër dëkk bi dañuy xool dañuy sensibiliser nit ñi dañuy wax ci wàllu pour delloowaat leen ci valeurs yi gën a baax ak jikko yi nga xam ne maam amoon waaye dafa am dafa am loo xam defa ñun duñ ko mën li ñu mën mooy sensibilisation wax waaye nag dóor ci taabal ji ne lii na dakk na arrêté loo état moo ko mën donc kon président la république bu mës a jël bii moom mooy bi ci gën a ci premier mandat bi nga xam moom la ko deuxième mandat bi mu commencé bi ñu gën a neex daal ci neex ñëpp képp koo xam waaye képp ku bëgg saw askan jëm ca kanam da nga xam ne wax dëgg fa yàlla décision bu mu jël ndax réew Afrique yu bari kaay ma wax li leen tardeel mooy sàngara tubaab yi ñoom yeewu nañ muus nañ am na ñu organiser seen wàllu euh, naan googu am nañ ko texe ba nga xam ne euh, maanaam yàqu yàqu dem xel du ca du ca àgg naka noonu taayoo lañ du ca àgg waaye ñu africains yi amuñu lu mel noonu réew Afrique ñun dañuy voyage fu baree bari boo fa demee sàngara si ni ñuy naanee ndox noonu dañ ko jaay ci mbedd yi waaye loo ci gis euh, xale yi yàqu xale yi daanu ci mbedd lasar lasari duñ jàngati duñ xamante fu ñu teg seen tànk donc loolu bu bu président taxawee ne daa bëgg mu dakk ci réew mi loolu alhamdulilah rabbil alamin wax ndax leen mooy premièrement naan gu bari googu baaxut ci santé waaye naan gu bari boobu day yéexal am réew ci wàllu développement te ay jeunes ay ndaw ñoom ñoo mën a gàddu réew mu ëllëg te bu ñu leen bàyyee ñu yàq seen xel ñu leen bàyyee sàngara tàyyelloo leen bu ñu leen bàyyee ñu jël seen occupation def ko ci naanu sàngara jàng duñ ko talate du xalaat duñ ko talati maanaam liggéey duñ ko talati kon nag loolu dañuy wax ne décision bi mu jël ñu ngi koy appuyé ñun tant que AIS di ko appuyé bu biir péng di ñu wax ne nañ ko nañ ko def nañ ko nañ ko def en rigueur bu ko defee euh, njaayum sàngara mi nga xam ne dafa yomb lool ci mbedd mi ak détails yi détails yooyu ñu dakkal ko yenn baar yi nga xam ne dañu leen ubbi te li ma ko wax rek étranger yu bari bari daw nañu dugg ci réew mi kenn ku ne indi sa culture yaa ngi ubbi baar yaa ngi ubbi loola neex loolu damay wax ne Sénégal xamu ko woon Sénégal buñ rawee ba mucc tey ci vingt-et-unième siècle ci mon mondialisation bi ñu dund culture yi jaxasoo li ñu war muccal du dara lu garde woon sunu sunu culture garde woon sunu aada ak sunu cosaan te loolu bokk na ca li fi maam yi bàyyi woon mooy naan gu bari gi baaxul ak yeneen yeneen baax te yooyu di yàq ay jikko donc président boo waxee lu mel noonu wax dëgg yàlla ñuy wax ne deuxième mandat bi kat wax dëgg yàlla commencé na ko ubbi ci wàllu xam ne jàpp nañ ne dana gën a defar Sénégal dana gën a jëm ci kanam kon loolu daal ñu koy appee di ñaan yàlla yàlla na wéy noonu ba xam mesure dana ko jël ba détaillants yi dem ak naan sangre bi met ak école yi ni ñu leen koy xale yi ni ñu leen ko yombalale def ko ay mbuus yooyu a jóge ci réew ndax Sénégal la te ndaw ñi buñ leen sàggane loolu mën naa am weeru koor ay euh, AIS tamit euh, di yëngu ci maanaam euh, sauvegarde soufisme ak maanaam wàllu diine diine l'islam tey ban jéego nga fas yéene dox pour fexe ba tarixa yépp bennoo ca commencement koor ga ba ca mujjantal ga jërëjëf loolu alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi léegi bientôt koor gi dugg li ci des bëreetul di ñaan yàlla yàlla na ci àgg bisimilah gën ci alhamdulilahi rabbil alamin di profité rek di jeexal émission bi di woote musulman yi ñu gën a àndaat nekk benn bañ ñi nga xam ne dañuy diviser Euh, jaxasuñu pour ne ñee war a war a war a ñee war a jiitu jiitu loolu ñu moytuñu ko alhamdulilah ba nga xam ne am nañ commission boo xam ne vraiment su ñu ngi ñaanal sunu sunu sunu njiit loolu muy Iyane Thiam euh, yàlla ko yàlla gën a dëgëral wax dëgg yàlla mi ngi ci liggéey bu rëy ànd ceeg ñun ñi nga xam ne tamit ñoo ñoo ñoo dajale tarix yëpp muy AIS fas yéene ànd nekk benn ngir koor gi ñu woo koorandoo warendoo ñu koorandoo warendoo alhamdulilah rabbil at yëpp gis nga loolu la ñuy def dañuy woorandoo woorandoo Tiwaawoon Tuubaa Kawlax Medina Baay Léona Niassène ñëpp Njaasaan Cene bi loolu mooy mooy mooy mooy ndimbalu Sénégal loolu mooy harmonie bi Sénégal bi ngi ci woo socie ñu woo société bi ñu ngi woo musulman ñu ngi am ñu dugg ci koor bi nag gën ci alhamdulilah rabbil ko euh, des na ay liggéey nag ne insha allah ñu ngi ci a ànd ak liggéey ci pour jàmm jooju gën a jëm ci kanam euh, jërëjëf suñu mbokk internautes yi lii lañ leen indiloon tey ci suñu émission euh, toj yax àndoon ci ak serigne mam Cheikh mbake Khadim awaba di président AIS wax deug yalla serigne bi waxtan nañu waxtan bu yaatu laal question yo xam tay moy question d'actualité yi apporté na ci nak ay réponses yo xam vraiment dal na xel te yaakar na ne sénégalais bu ko dégg war ko mëna a rafetlu jërëjëf sëñ bi ba benen merci beaucoup jërëjëf.